sigel teweytoo madru yi tuub nan ci yow bu wer te bul faale ka wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni ya na nya dawote nya dawate mustafa Moustapha billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mbok julidi mbok talibi yen ñi nga xamanteni yen ñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di gis ci nuyu boobu ak ziar bi saahibul fadila ak Cheikh Mouhamadul Mountakhal Basir ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér ak mboolem jabaru Serigne Touba gi nga xam ne ñoom la fi nekk lépp ak mboolem taalibe yëpp mbokk yi ginnaaw comme ni nga xam ne noonu lañ ko ubbee woon ci bëccëg ñoo ngi fii ci mbaarum Daaru Xudóos ngir dafa amale benn jotaay waxtaan bu am solo lenn ci li nga xamante ne ni moo am fii ci biir mbaar mi muy exposition bi nga xam ne moo fi am te tey ji exposition boobu ñu jagle ko Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina jàmbari Serigne Touba ja moo tax tey ñu ànd ci ñaar ñaar ñoo xamante ne nii ràññeeku nañ loolu ci liggéey bii ñu bokk ràññeeku loolu ci yoon yi seen xam-xam it kenn nattableetatu ko ak seen taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko ci liggéey bii nga xamante ne ci lañ seq nii muy Serigne Cheikh bokk ci section tuuba waaye doon membre éducation et culture bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxawee exposition bi waaye ak ku ñu wax Serigne Cheikh Diop Taïf bokk ca commission commission éducation culture bu section Taïf waaye doon membre bureau fédéral boo xamante ni moom it xam-xamam ak euh, melokaanam kenn ràññeetutu ko ci biir euh, dëkk bi ñu nekk nii. moo xam na tey jii ñu nekk ci mbaar mi ne am fi bëgg fee amul jataay waxtaan lenn ci solos exposition bi ci ñi ko taxawee nan lañ ko taxawee ak nak lañ ko waajalee ba tey jii liggéey bi agsi bi tey jii ñu agsi fii nii tey ñu seq suñu ñaari gan yi muy comme ni ma ko waxee rek sëriñ Cheikh Fall Taïf ak sëriñ euh, Cheikh Diop euh, Taïf kon su ko defee damay bàyyi ak sëriñ Cheikh Fall Taïf rek mu nuyoo ak mbooleem euh, mbokk julli yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñuy seetaan nii su noppee ñu door jàll sëriñ Cheikh Diop Taïf mu daal di nuyoo kon sëriñ seex asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi kon noo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax loolu suñu xaaree wax rek ñu naan Cheikh Ibou Fadil Cheikh Ahmadou Mountakha ak Cheikh Ahmadou Mokhtar ak njaboot Cheikh Moustapha waaye njaboot Cheikh Khadim di sant bu baax baax ci nim ko waxe di am mbekté lol ci waccay bis bi ñu nek di wàccaayu bisu asrul muharram yalla dogal nak sa saa buñ ko jubé rek ñuy def ab exposition di ko tuddee kenn ci njaboot ci ci njabar gi. mu melni ni ren nag ni ko waxe rek xamna ku gis photo yi rek da nga xamni kiñ ko tudé moy jambar jëri di maam Serigne Fall Babil mourdine non ko ittihaad non ko wilaya baaxoo def rek kon inshallah non la ko defé ren jit kon ñu tollu ci waccay wi kon xam naa sëñ xaaj mi tënk foofu nuyoo bi rek incha allah ba mu ñëwaat bu soobee yàlla. jërëjëf Cheikh Diop Kellel ñu lay jaajëfal baax ci nuyoo bu am solo boobu yi comme ni ma ko waxee waat rek ba léegi ñu ngi kenn ci sunu loxo ndeyjoor bi sëriñ Cheikh job Taïf moom it comme ni ma ko waxee loolu mu bokk ci éducation culture bokk section Taïf moom ñu ak kon sëriñ Cheikh taif Taïf asalaamaaleykum ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk taalib yi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Xaadim noo ngi lay delloo am te lay ziar tey ziare Serigne Cheikh Fall Taïf ak mbokk yëpp di sof sama nuyoo fi ko tàmbalee rek di ci ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha Serigne Ahmadul Mokhtar ak mbooleem njabootu bunti këri Serigne Touba yëpp ak waa lislaam ji yëpp waaleykum salaam. jërëjëf Serigne Cheikh Diop Taïf kon mbokk yi comme ni nga xam ne noonu la nga ko waxee woon léegi ci mbaarum Daaru Xudoos mi ci lañ nekk muy fi nga xamante fi la exposition bi am tey jii nag tamit ñu fa jagleel ko jàmbaari Serigne Touba jam muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina kon Serigne Cheikh Diop Serigne Cheikh Fall Taïf tey jii ñu ne ci wàccaayu màggalu xisroonu muharram muy bis bi suñ Tuubaa ñu bis woon Tuubaa at mu jot ñu am ku koy jagleel tey jii ñu jël exposition bi jagleel la ko jëmi si Ibrahima Fall Lamp tey ji ci biir exposition boobu ànd ñoo taxawee exposition bi ak lan moo sabab tey ñu tudde ko si Ibrahima Fall Lamp al Mouridina. waaw jërëjëf sëñ Xadim euh, exposition bi moom ñi ko taxawee mooy kuréel googu ñuy wax éducation culture bu wilaya nga xam ne ñëpp rek ñoo ne ca liggéey ba donte nag xëy na dana am ñoo xam si bi dañuy gis nii ñoo ca gën a lañ bàyyee gëstu baag yu mel noonu waaye commission boobu moom moo ko taxawee li tax nag ñu jagleel ko maam Serigne Fall Lamp mooy ñëpp xam ne bis bi la Seexul Xadim lépp lu ko waajee defal jàpp nañu soo gisoo ca wet ga war nga caa gis maam Seex ca ga mooy mooy bu njëkk bi ñaareel ba it bis bi doon bisu fàttaliku jàpp nañu ni fàttaliku Seexul Xadim yellee noonu la fàttaliku maam Serigne Fall yelle ndax ginnaaw mooy Babul Muridina waaye ki taxawaloon ki nga xam ne moo taxawal bis di Cheikh Amadou moomee nak Cheikh Ibra ginnaw Cheikhul Khadim wala sax ci ndiku Cheikhul Khadim mu taxaw ko lol lol lol and ak mom waye bimu fi joge nak mu taxaw ko taxaw bo xamni bi japp nañu ne ko ci fek bari wut Cheikh Ibra roy koy bi nga xamni li fek manam mom la Cheikh Khadim tan muy écha muy échantillon yoonu mourid ko exegut ti mom jappal ni dese nga waye ko ko romb nak eppal nga kon mu melni nak Cheikh Ibra dafa melni ni nag ni koy woné ak niñ koy waxtané ci mbedd mi ak deug deug deug Cheikh Ibra wóote na kon nag loolu moo tax nag ñu tànn ko ngir gën a leeralaat kan mooy maam Cheikh Ibra ak fa la tànkam ndax ku ñëw ci tableau yii wala ko gis ay jaar-jaaram ak i gëstu suñ la soo ko liiree wala soo ko jàngee dana wuuteeg lool lool Cheikh Ibra mi ñu présenté ci mbedd mi. kon bëgg ko bëgg koo leeralaat nit ñi bañ xam ne Cheikh Ibra moom ci lu set la newoon ci dëgg la nekkoon ci jaamu yàlla la newoon amul lenn lu tax ci lu nekkoon ci lu wér kéng ci la newoon kon man na mas naa wax ni sabab yooyu bokk ci li tax ñu tànn ko. fatale ko wat nit ñi waaye ñi mëna gëna raat gën a rayaat ci moom ginnaaw mooy échantillon bi li fek ko exégut ci moom rek day melni ni nga ginaaw nak ñun bis bi dañ koy def dañ koy def ngir fatale Cheikh Khadim de ko ci ñaanal waye di ci jokk mbokk ak di ci jàngalale kon japp nañ ni buñ ci jàngalee Cheikh Ibra bu ku ñun ñepp royon kon day melni li señ bi bëggoon ci yoon wi dana ko am kon ni jul niñ bëgg jul ñi melni dana ñu mel kon dal ma sax ni ginaaw mbokk gaak ak taxaway ba nga ci aju waye gën ko woné wat bañ gën a xam na kan mooy maam Cheikh Ibra xam ne Cheikh Ibra mi ñuy présenté ci mbedd ak mi ci téere yi moom ak moom mooy kan woote na lool kon mën naa xam ne sabab yooyu boo na ci li taxoon ñu tànn ko sëñ comme ni nga xamante ni noonu ni ñuy wane Cheikh Ibra ak Cheikh Ibra mooy kan tey loolu wute na waaye tey nag ñuy jox misaal mu gàtt rek ci taxawaayu Cheikh Ibra ci yoonu Mouride ak digganteem Sëriñ Tuubaa ci misaal mu gàtt nga xam ni man nga ni tey lii nii mooy jëmmi Cheikh Ibra mooy doxinam tey ban doxin ngay wane ci ci ci jàngat boobu sëñ Xaadim foofu moom boo fa doon joxe misaal lu yomb la mooy culture culture yoonu murit Cheikh Ibrahima moo ko indi maa tey noo gis am murit di ko defee dox di sumi dàllam sumi mbaxanaam raam joxe addiya foofu sañ bi teg ci kaw nekk ci suuf di ko liggéeyal loolu Cheikh Ibrahima ko joxe boobu mooy bi si njëkk ñaareel ba it moo wone Cheikhul Khadim maanaam moo ko wone mooy ki nga xam ne tey ji nii bu fekkonte ne du Cheikh Ibra moom moo ko kon la ma waxoon ni kon Cheikhul Khadim daa dem ci ko xam kon moo wone dëgg dëgg dëgg dëgg Cheikhul Khadim ndax nag Cheikhul Khadim mun doone wane boppam ne e eh, kaay leen maay sëriñ bi kon faaw ñu wane ko kon moom moo ko wane waaye bi mu ko wane ba noppi nag moo wane nag wan yoon la ñuy jaar ngir mën caa jariñu waaye moo wane waatee nag ku jaar ci yoon woowa yan njëriñ ngay am kon man xam ne tey la ma waxoon ne maanaam yoonu murit nee na bu doon ab sëya bu doon ak ngoro nee na bu tasee ñu delloo ko may ga nee na yoonu murit bu doon ab sëya bu tasee alal jën ci defoon moom moom lañ koy jox kon man nga xam ne can yoonu murit moo ko takk ba xam fi ne kon tay lepp lu way doxé ci mourid dal ba man ca jariñu koku moy ki wono mo manam moy ki wono yoon wi ca Cheikh di moko woné mo wax ni Cheikh Ibra moy modèle bi nga xamni tay bu ñepp meloni mom ndax neena Cheikh Cheikh Xadim neena li tax mu defal ni Cheikh Ibra moy da ko defal lu ko ken defal te da xol fa ko yàlla tek moom mu teg ko fa kon dal bu fekkoon man na ko teunk man nga xamni moy mooy échantillon bi yoonu murid waaw lo gis rek ci yoonu murid am mourid jaar ci ba am dara ci ak talibé digënde ak serignam Cheikh Ibra moy ko ko woné inshallah macha allah jërëjëf Serigne Cheikh jërëjëf su ko defee ñu ngi affaire lu baax a baax mu mel ni Serigne Cheikh Diop kii la Serigne Cheikh Diop Serigne Cheikh Diop Taïf it ñu bokk ak yow plateau bi tey nga dégg comme fi nga ne fii la fi la doon daanele léegi nii waaye comme tey ji euh, ab la ci ci ak leeral gu gàtt rek ci taxawaay bi ndax mu mel ni tey jël exposition bi tudd ko si Ibrahima Fall Lamp tey jii tey ana tey ban ban ban maam tey ban message wala tey ban melokaan. ngay wanewaat ci taxawaay bi exposition bi ak jëm Cheikh Ibrahima ci yoon wi. jërëjëf Serigne Khadim jërëjëf <clears throat> Serigne Cheikh Fall Taïf <clears throat> ñoo ngi jég lu baax melokaan yi ñuy waat ci exposition bi ci lii sëñ Cheikh waxe foofu lañ koy sofe gannaaw maam Cheikh Ibrahima moom daf daan wax ne li ma tax a ñëw jamono bokk na ci wane sëñ Touba fa gis ko jafe ak jàppale Cheikh Amadou Moustapha fa jàppale ko jafe. kon nun biñ demee ba lépp yomb kon buñ goree war nañoo delloo njukkal Cheikh Ibra ni ko sëñ Cheikh waxee nag Cheikh Ibra ak sëñ Touba damay faral di wax ni te mas namaa dem màggal gi mali waxtaan ba noppi téeméeri sëriñ ci taal ak téeméeri sëriñ ci tiyaani ña nga bañ noppee dañ ne sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima Fall képp kuñ ko tàllal nanguwoo ka koy tàll xam wala tàllaliin woo baaxut ñoom ni ko sëñ image bi ñu leen wanee woon moo baaxut ba ci ñun ñii sax jàngaat na ci bi tey loolu nag lañ bëgg niñ ko defee woon sëñ Fall loog maam nook am ci lu leer nañ bindu ko bi fi jógee maam Cheikh Ibrahima Fall ñu doxee ko noonu ndax nag lii dana bokk ci la maam Cheikh Ibrahima Fall waxaloon boppam ne ba c'est loolu dégg naa sëñ am sam sëñ bu di ko nett astaghfirullah sëñ sëñ Abdou samat moom sëriñ Chouaïbou mu ne Cheikhul Khadim bi mu ñibbisee géej gi sax Iblis laaj na ko wàllam ci tukkib géej gi ab sëriñ jàmm mu ne ko amoo ci ba mu wan ko gannaaw mu ne ko ñii di nga Cheikh bu leen baalut waaye loolu bi ko maam Cheikh Ibra Fall dégg may itam képp ku muy tuddoo te meloo ni nga war a mel ña may faye Cheikh Ibra ca nga kon nu dañuy jéem a góorgóorlu rek ngir jéem a wane maam Cheikh Ibra ju leer joo nga xamante ne nii ku am ndimbal ku ne bu ci sukkandikoo dana xam ne Cheikh Ibra mi doon dégg kat bokkut ak mii mu gis. ba tey exposition bi taxaw na taxawaay li si sëñ Moussa waxoon ne ci bis bi boroom xam-xam yi nañu xamal ñi xamut kon ñi nga xam ne dinañ màggal si a xam ak ñi xamoon ñëpp bu ñëwee danañ ci mën a dolli ko ñi xamul woon ni danañ ci mën a xame loolu itam bokk na ci taxawaayu exposition bi te maa ngi sëñ Moussa mu jamaagal bokkoon na ca wàllu lii ñuy def tey ñañ ko joxoon mooy sëñ ma dem ak sëñ mu Moulay Bousso ak sëñ Mbacke Bousso ñoom ñu wàññee ko ne xam na ne boromi xam-xam lañ ñuy royaat ci ñoom ak bëgg a taxaw taxawaay boobu rek mel ni sëriñ Cheikh boo doon boo doon boo doon misaal comme tey nga mën wax ni jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ci la nit ku jàng acteur bi koy jàngale te nan ngay misaale war lan ngay leeral taalibe ga amoon démb ca mag ña ak taalibe tey jii nii. jërëjëf taalibe ga amoon ca mag ña ba tey rek mooy gi war a am ci ndawi tey ñi nag ndax mag ña nañ ko doon jàngalee ñi fi nekk tey noonu lañ koy jàngalee ak ndax mag ña nañ ko doon dundee ñun ñi fi nekk tey noonu lañ koy dundee lu mat a bàyyi xel a noonu ndax mag ñii ku mel ne Maam Cheikh Fall mii ñuy tudd wa wane seen bopp sëñ Tuubaa rek lañ daan wane fuñ mas a nekk sëñ Tuubaa lañ daan wane. ndax sëñ Tuubaa leen ko jàng dafa tax ne leen ñii ma leen booleel muy taalibe yi bu leen leen wan seen bopp na ngeen leen wan yàlla ku wan yàlla ña la topp yàlla wan la ña la topp ku nëbb yàlla ña la topp nag doo ko mën nëbb noppi yàlla nëbb la ña la topp sëñ Tuubaa ndax nga attan ci man loolu dama leen wan yàlla ma leen wanee yàlla nag yàlla wan ma leen maam Cheikh daa wanoon yàlla ñi ko topp ñi ko toppit yàlla wan leen maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Tuubaa si Amadou Ndiaye di waxee dafa waxoon ne yàllaa nga ne maa ngi nii daf leen a xamal ne man am naa yàlla bu ngeen yemee ci man rek am yàlla ma yóbbul yàlla ku àgg ci yàlla boo jàppee ci moom àgg noonu la leen yàlla defal ñu dem nag gis sëñ tubaa ñoom yem ca képp gisuñu leneen moo tax moom maam Cheikh daana wax ne adoom sëñ bamba bëskil la bëskil nag soxla wuti wax poids la soxla lu wax ji bari ba neen na nga ko jafal foofa la nekkoon foofu la tax foofu la nàmputal njaboot gi kàddu yar lañ ci doon wax te ciy jéggulu itam mu mel waaw mbokk jullit di mbokk taalibe yi comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee woon rek ñoo ngi fii ci biir mbaarum Daaru Xudoos mi nga xamante ne nii nekk ci atub Daaru Xudoos bi ñu ne ci exposition bi nga xamante ne nii ñu ngi koy amel fii ci biir mbaarum léegi ci beneen laaj bi rek mu mel ni tey jii moo nekk bis bi nga xam ne moo njëkk exposition bi tey kañ ngeen fas yéene dawal exposition bi kañ lay jeex ci ci biir gi xam nga maam comme tey mooy ouverture bi moom balaa moo jeex rek mooy bu ñu màggalee suba sax ndax tey jii incha allah bu kilifa yi dikkee nga xam ne egsi nañ bañ leeral leen ko subay dafay nekk waaye rawatina bisu màggal bi ku ñëw ci eh, ci ci baasu culture bi da nga fekk da nga da nga leen fa fekkaat ñoom it nag bisu màggal gi yëpp lay seen liggéey mooy xamle li ne ci tableau yi ngir ñi mën a gën xam kan mooy Cheikh Ibra moom la ñuy yendoo moom la ñuy fanaane ba keroog màggal gi jeex maa li commencé tey daal ba keroog dimanche ci suba saa boo dégg ci exposition bi da nga ko fekk da nga fekkit ñu la ñu lay xamal li li nekk ci biir ndax sax li ñu gëstu lépp xam nañu xëjul ci tableau yi waaye kon dañoo tënk leen ñu ci tableau yi waaye lenn li nag dañu ko xam ab document boo xam te ne bii ndax ginnaaw ko mel ni gëstu ko dafa xaw a jafe kon boo ko gëstu ba am ci lu wóor da nga koy ba nga xam ni ëllëg koo ko soxla mën caa dellu ba jàpp nañ ne liñ ci liñ ci gëstu moom xaju ci tableau yi waaye lenn rek lañ lañ ci tableau yi leen la ci nag dañ ko def ab document boo xam te ne bii dafiy nekk nga xam ne incha allah ku yàlla dogal euh, nga soxla maanaam nga xam ne léegi nga gis tableau yi sax gën gën nga leneen lu ko gën a yaatu soo jokkoo commission éducation et culture bi bu ñak dañ ci gën leneen lom si mooy gën a yor incha allah Serigne Cheikh bu defee ma bayila la nga tàggatoo mbokk téléspectateurs yi nga xam mom lañu sétane suñu fa su ngi door ñew Serigne Cheikh Diop tayf moy mu dal di tàggatoo xam li ñu tàggatoo daal mooy lu neew neew rek nga xam ni loolu mi ngi ci biir tableau yi ngir ni liñ jubloo won ak moy jimi maam Cheikh rafal moy kan dañ ci danaa ci indi ñet rek ñu ci dina ko taggo nga xam ni tay képp kuy kuy kuy juk di def lu la neex ci ñet yu ci ngay nekk bi ci ñëk moy soli sagar wala nan sangara wala njaaloo wala tux ba pare léegi wane ni ab Baye Fall nga la nga neex nga ñett yooyu nag benn bu nekk maam si da cee àddul boppam àdd bu leer naññ nga xam ni képp ku koy jëfandikoo ndax bu fekkente ni pon mii la sëñ Ibrahima Thioune Sambanaar moom lettre bu sëñ Sofal bind lettre bu si maam Cheikh Fall bindoon sëñ Mourou Sofal ci gàmmu gi sëñ Mourou Sofal mu mujj gàmmu Thiès 1950 bañ gàmmu ba ci suba sa da koo woo jàngaloo ko lettre ba ni ko kat dama bëgg nga jàng ko mbooloo mépp dégg ko mu di ko jàng dana ko rek da nga koy jàng ba mokkal ko mu di ko jàng ba ci biir mu yuux mu xaaju mu ne ko loolu tax xaaju mu ne ko man de damaa yërëm mag ñi sàggan ak gone topp seen bànneex ndax lettre bi li fi Cheikh dafal wax nee na pon képp ku koy jëfandikoo ca di ma tuddoo ba faatu ca tuuboo ko boo léegi doo ma gis kon loolu mbind ma ca bari ñu koy toppandoo ci loolu. beneen bi ci wàllu njaaloo la Baye Modou Fall nee na kër Cheikh gii ci woon njaareem moom fa la muritoo nee na ñetti kees fa nekkoon keesu soxna yi. keesug dongo yi ak keesug sëriñ bi ak ñaari teen maam Cheikh waxoon ni teen bu jigéen ñii gi bépp dongo bi fi ne yër ko sa bët tege ci man ngaa jigen fa nga doon jëm maanaam fa nga jóge woon li nga doo ko am teenu góor ñii ju fa dem mën wax ni nga ci dañ lay andi ci ëtt bi futti la dóor la ba nga mandi boobaa dañuy xam ne la ko waral mooy da ngaa newoon ci keesu jigéen ña kon kooku ni ku sori njaalo la sangra bay massa ñang kollo ma nga ne ma nga ne image ya mo fekk ci ray bo bi daayra da di kun am mbolo andil cheikh ibrahim adiya bolé ci ñetti biteri reclès joxale ko ko mo jamanté ak ñom bam yag mo ne ana moussa ñang kollo mo ne ko faal mo ne ko ka jël ñetti yi tek sama kanam ñumay tumal si musa ñang kollo jël ko togat ci mbolo mi ñu jamanté bu yag mo ne ko moussa ñang kollo ñett yoy ñumay tumal demel nga yak leen mu dem toj ko andi ko andil ko euh, baq wan ko ni ko noonu ma ko mu ko yii may tuumal de baaxut baaxul wut te Cheikh Ibrahima ci kon kooku jàpp naa ni ñett yooyu boo ci yemoon bare nag ñoom si fi ne ñu koy roy ak ak dekk Baye Fall ñett ci lañ ko teg ca yooyu moom da koo leeral maa da koo leeral naññi ni nekku ca ca képp ku ci nekkit nag soo ko tuddee bële ko ko gis asalaamaaleykum wa jërëjëf Serigne Cheikh Fall ci leeral yu am solo yooyu kon su ko defee ñu eh, laajaat question bu mujj bi rek leen ci dunduk Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Diop Taïf ci dunduk Cheikh ginnaaw Serigne Touba Xaadimal Moustapha bi mu wàccub liggéey. dundug maam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw Xaadimal Moustapha doy na ci sëkk ñu yem coo ci rek wàcce suñ kàddu jataay bii nga xam ne gouverneur général woote woon na ko njaareem te convoqué woon seex sëpp ak itam buur yëpp ñu ñëw njaareem jataay wax nañ ne bañ ñëwee ak doomi sëñ Tuubaa ñu ñëw maam Cheikh Ibrahima Fall moom wuy siwut ndax la ko te ñëw dane gouverneur général du sama kilifa moo tax nanguwul a ñëw wax nañ ne bañ toogee bëccëg yenn cheikh si bëgg a dem wax nañ ne commandant le cercle taxaw ca kaw ne len képp ku génn kër gi bu gouverneur bi ñëw dans la signaler tay yeen xam ngeen gouverneur bi moy kan. ñu tok bam ñëwé mu wax ni mu am ku mu woné ko nañ and yeen ñi dem ci tani su ma ba ñu waxtaan réunion suñu réunion ne cheikh sil ma ngeen dem kër gu mag ak doomi seigne touba yi bañ démé tok di ko xaar ci gattal bam ñëwé ñu andi table mu ñëw ñu génn ci kër gi ñëw tok gouverneur waxal boppam ne mënatuma kat ku soxla ci yoon wi di wax ak man waaye mënatuma soxlaa ñu di wax ak ko ne damaa bëgg ngeen tànn kenn jiital ko su ma dee te wax ak kooka su kooka su ngeen soxlaatee wax ak kooka mu wax ak man waaye ci gàttal bañ waxee loola mba sëñ Moussa Mbacke wax ne kon kat loola kon mënut a ñàkk ñu wooyi Baye Cheikh Ibra mënut a ñàkk ñu Baye ñëwee ci jataay bi nag ba agsi daal di tàmbalee raam ba agsi sëñ Moussa làmb jox ko gouverneur général ne li ma doon laaj leer na man damaa defoon ne ki ñuy wooyi bu ñëwee mooy doon chef Mouride waaye mu ñëw sukkuraam kon li ma doon laaj jëratu ko kon kii ki ñu defal lii kooku mooy lépp yoon wi ku ko moyeti danaa ko diggaaleeg yow ku wooteti yoon wi te amoo ci digal ak koo kon loolu doon sëkk ci waxtaani Cheikh Ibra noo ngi jégalu di leen sant di leen gërëm waaleykum salaam sama kàddu yi mujj mooy sant bu baax fu waaye mën a nekk bis bi rek nga def ci ñaan ta xam ne bis lu ci waaye def defaloo kenn sa bopp nga ko defal waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Diop Taïf mbokk yi yéen xam ne yéen ñu doon seetaan ñoo ngi fii ci jàkkay Daaru Xudoos dafa amal benn plateau fii nga xamante ni moom lañ tuddee jàmbaari Serigne Touba ja jàmbaari l'islam ja jàmbaari yoonu murid ja monsieur Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina tey jii nag mu nekk mu nekk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Muharram ñu nekk fii ci mbaaram Daaru ba màggalu Daaru ba màggal ba plateau ak suba ak jàmm ci ajuma ji muy muy muy muy muy pane muy muy muy ñu fas yéene amal fii nii benn benn remise diplôme ci école Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke genn fànn yi nga xam ne moo nekkoon ci biir dëkk bi ngir ñi nga xamante ne amoon nañ ci ay notes yu baax moo xam ci bac bi la wala BFEM bi wala certificat yi wala yeneen wala ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci classe yooyu noonu lañ koy continuer ci màggal gi incha allah rabbi ci mboolem yëngu-yëngu yi nga xamante ni moo am ci màggal gi moo xam ziar la wala ay ay ay teewaay ak leneen lu mën a doon kon mbokk jullit yi mbokk taal yi fii lañ yamante yéen ci seen seen waxtaan yi nga xamanteni mom lañu ubbe won muy plateau bi di euh, doñ dara yàlla leen ki dunu ci Ibrahim Fall Lam Fall Bal Mouridina ñu ànd na ci suñu ñaari gan yi muy Serigne Cheikh Fall Taif bok ci section Touba ak Serigne Cheikh Diop Taif mooy bok ci section Taif ñi ngi ñaan ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sigil te weytoo madru youtube nan ci yow bu wer te bul faale ko wuy se ka farje ki mustafa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yawon ya dawo te ya dawa te mustawa